salaatul faatihi nee salaatul faatihi am na lu bari lu ci nit ñi di wax ak di werante am na lu bari lu ci nit ñi wax ak di ci werante waaye na wóor ñëpp ne waaye daal ne na wóor ñëpp ni ci xam-xam bu wér ci xam-xam bu wér boo xam ne du ràcc tey ci sa kanam a tax nee kat du ràcc tey ci sa kanam a tax mu wax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 joxoon ba mu ko defee ne ba mu ko defee ñu wàcceel ko ko min hadratil ghaybi ne ñu wàcc ñu wàcceel ko ko képp ku bëgg kayit googale ba mu ñëwee ne kayit googale ba mu dikkee kayitu leer la ne kayitu leer salatu ba nañ ko binde mbind ma ngay tàmbalee ci ndey joor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 خويا ابو القدر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ناس نعم، كل ما يجب لكم من نعم، يتزكي واي موي لي ام واي ني نعم، لور موي لي ام موي لي ام لور موي لي ام موي لي ام موي ام صلاة الفاتح نه صلاة الفاتح ألا مرة منها من النار فدية وموت على الإسلام إذ ذاك يرتم ne góor loolu. ndagam nangu nañ ko. ne ndagam nangu nañ ko góor ñi ne radiyallahu benn yoonu salaatul faat rek fukki at yu mel ne njëkk lañ ko yëpp nag sama rëy ci yow. teg yomul ci moom al islam yi tam. allahuma yow yàlla. ne salaatu moom la ñu ci ñun. allahuma yow yàlla. salli yàlla na nga dolli xéewal ak teraanga. ne salli yàlla na nga dolli xéewal ak teraanga. jëme ko ci kan. jëmee ko ci kan ala sayidina ci suñu sang ne ala sayidina ci suñu sang ñu ne sang bi kan ñu ne sang bi kan muhammadin ibn abdillahi rasulillah mooy muhammadin ibn abdillahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam foog ñu feeñal ko ba xam kana foog ñu feeñal ko ba xam kana lafzu siyaada dafa rëy ne lafzu siyaada dafa rëy am nañuy kontar loolu am nañu korte lool waaye siyaadatu boobu mi ngi ci salatu fatiha te min hadratil xayb la jóge waaye loolu mi ngi salatu fatiha mi ngi ci hadratil xayb Mouhamad moomu mën a محمد مومو نخ مانام الفاتح كدي ادي اوبي لما نيل لاغا خامي اوغلق تجي فون نكو راب كين دوكو تي نه موي ذلك هو الفاتح ليه كوكو موي ادي اوبي موي مفتاحي موي مفتاحي moy miftah bi ba nopi mo ubbi ne moy miftah moy caabi mo ubbi mu dellu ci su fekkone du sallallahu alayhi wasallam yalla du bind dara ne mu dellu ci du sallallahu alayhi wasallam yalla du bind dara du bind jëmm yi nekko du bind jëmm du bind ruuy du bind ruuy du bind jant du bind jant du bind asaman du bind asaman du bind bidéew du bind bidéew du bind wer du bind wer du bind dara yamu ca de ne yamu ci wal khatimi lima sabaqa bi mu it ناصر الحق كداجي ديمبل دك بالحق سي دك ني موي كي خامي كي موي ادي ديمبل دك سي والهادي كجي اندي كجي ادي كجي ادي كجي كدي اجي غندي جامي يالله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 وعلى آله أك نيونيو يمسلي وعلى آله أك حق قدره دق دق درجة صلى الله عليه وسلم مدفر حق قدره دق دق درجة صلى الله عليه وسلم ومقداره أك فوارب ومقداره أك العظيم بجاج مك العظيم بجاج مك إن من إن من كسر تكن إن الله إن الله xadru sallallahu alayhi wa sallam mooy adduna mooy zahiram mooy batinam mooy zahiram mooy adduna mooy adduna mixdaar ba mooy adduna ak laxira ak ya cay xew ci kattan salaatul fatiha ngoog kenn amu ko kenn kenn amul. ku ko am da nga koy barkeeloo waaye dëgg dëgg Cheikh na Tidiane ko. ku ko am daal da nga koy barkeeloo waaye dëgg dëgg dëgg. Cheikh na Tidiane yow mooy borom. ku neex loolu neex wax soo fi jógee. ne ku ku mu neex loolu neex nga wax. waaye duñ duñ ne yàcc ci kenn ku nekk di duufal la nga am. waaye nag yaakaar du ci nekk di yàcc. mu mel ne ñun amuñu dara. amuñu yorul dara. mu mel ne amuñu dara kenn du ko def. kenn du ko def. te kenn masul dégg màgg fii ci kaddu. te kenn kenn masul dégg mukk mu àgg fii ci kaddu. par par looy yóbbu ma ci. par par la yóbbu ko ci. waaye dafa am lu tax nag. waaye dafa am lu tax te ulaa wax. il faut que ma war a toll. il faut que war a toll. ana ko am ku day na Cheikh Al Hadj Omar. ne ana kan moo am ku day na Cheikh Al Hadj Omar. radiyallahu anhu. wax leen ma ko. ku ko am. kenn amul. انا كو ام كو داين الحاج علي الحراج لا انا كان مو ام كو داين الحاج علي الحراج شيخ محمد الغالي كان ام كو داين شيخ محمد الغالي عبد الوهاب بن الاحمر كان كو ام كو داين عبد الوهاب بن الاحمر ابراهيم الرياحي كو ام كو داين سيدنا ابراهيم الرياحي محمود تونسي كو ام كو داين محمود تونسي محمد بن ابي النصر محمد ابي النصر اك اك اك اك اك اك اك اك لدم لدم لدم لدم لدم بعد نيتو بعد نيتو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 mag ñi nee nañu. nee mag ñi nee nañu. ku ma ne. ku ma. ku ma ne.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 sunna moo të. ne terminé sunna të. dem ci jàkka yi julli ji jigéen ñi sax ñu dem ci jàkka yi julli ji jigéen ñi sax ñu koy def. ñëpp a ngi dem mag. ñëpp a ngi dem mag. ñëpp a ngi ñëpp a ngi jàng alxuraan. ñëpp ay fóore lañ. waaye li të. mooy sunna. mooy sunna mooy sunna. mooy sunna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 soo ko soo ko sànnee doo am loo lekk ndax doo togg. ndax soo te soo ko téyee mu lakk la. te soo ko téyee mu la. nee ñun sunna noonu la ñuy mel ci jamono googu. nee ñooy doxal sariatu nag. nee nag. akum njub. neen la nan la seen jamono di mel. nee seen jamono ngi mel na nga fab weer ay aw sax. nee mi ngi mel ni nga jël aw sax. de kaste buteelu vinaigre bu pire.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 su ko neexal mu amal bàyyi na rek boyal waaye daf ñu amal ba noppi. mais waaye daf ñoo amal ba noppi. dugal ñu ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal. dugal ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal. ba loolu amee. mais ba loolu amee. mu sàkk ñu. mu sàkk ñu. lan la defal. lan la ñu defal. def ñu ñu di jullit. mu def ñu di jullit. gëm ko.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 كوي وخ لا اله الا الله نيكو لا اله الا الله اك كوكو دول وخ صاح اك دول وخ لا نيو سيد سيني بوب لا نيو لا نيو سيد سيني بوب تي تيران تي تيران اك كوكو ييك دون تيلي بوكو ني دين دون تيلي بوكو ني دين فونو داجي يوم فومو داجي يوم دان نلاكو جوف دان